kenn ku lijjanti moom ba génn Ukraine boobu dugg Pologne bàyyi daam caam lay wuyoo ci football la fa doon yëngu milieu excentré la club euh, amateur Dnipro foofu ca Ukraine doomu ndar boobu sonn lot lool laata muy euh, lijjantiku ba dugg biir Pologne daa rawale bakkanam euh, laaj tontu dox na digganteem ak Chérif Dia. am peex moo ko dugg moom Baye Dame Thiam. footballeur la nekk doomu Sénégal doon football ci ñetteelu division ca Ukraine mu amee jafe-jafe laata muy daw ca réew ma dem ca poloñ sori lool bomb yi ak fitna ga. ñun nag yegg si nañ si jàmm yegg si nañ si Pologne si jàmm amuñ ci benn problème gars yi teg nañ ñu si condition yu baax leen la ñuy naqarlu mooy suñu mbokk sénégalais yi nekk foofu di jéem a ñaan nu ngeen leen gën a mën a dimbalee ba ñu jógee foofu vite fait ak moyen bu ngeen mën mënti def pour ñu mën a génn foofu rek nañ génn. zone boobu rek parce que ville bu nekk mooy dernière ville bu nekk Ukraine. mu mel ni danoo nekk ci jamonoy bopp sa bopp jóge Ukraine dem Pologne jafe lool dañ leen di tànn moom mi nekk milieu excentré ci FC Légionnaire di club amateur bu nekk ci pro am chance bokk ci ñi dugg ca terrain ba dem ca Pologne. la majeure partie population bi dañuy bëgg génn yow nga ñëw bokkoo foofu bokkoo ci pays bi day xaw a métti pour nga génn foofu. parce que en général favorisation de am dañuy ñëw favoriser seen seen ay doomu dëkk parce que boo dee xool train bi en général jigéen ñi ñoo ciy ëpp góor ñi boo dee xool la plupart ay ukrainiens lay doon quelque quelque quelque africains ngi ciy gis amoon nañ problème foofu pour am train mais yàlla dimbale nañu si nu mu gën a gaawee dañu ñëw fekk ñu toog foofu noonu rek ñu ne am na am na train buy dem spécial. moment bu ñu koy wax nag suñu mbokk sénégalais yi nekk ñoo woon ak ñoom essayé nañ leen woo ba sonn mënuñ leen jot. lu toll ci fukki weer ak juróom a ngi nii moom mi di Baye daam caam jóge woon ca Ndar dëkk bu mu fekk baax am yaakaar ne bu demee ca Ukraine dana fa am carrière footballeur bu mucc ayib. yaakaar jooju nag Vladimir Poutine ak armée russe ñu ngi ko nar a tas ndax guerre bi. affaire bi mu xawee gën a gën a compliqué dañoo jóge ville bu ñu nekkoon muy Dnipro di dem ville dernière ville bu nek Ukraine moy Lviv mais pour ñu quitter Dnipro profi pour dem Lviv nekkoon problème parce que amon nañ problème transport pour train ak yoy parce que j'avais trop de monde. ci weeru mars bi ci lay am ñaar fukki at ak ben mom footballeur bi xalaatatul delluwaat Ukraine li bëgg moy dem ci France wala ci Suisse wéyal fa limu bëgg di football. Chérif